الحمد لله الذي الحمد ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki seetaankat yi Ali Imran yéen ñuy topp ci sunu wëpp wi nu bokk nun ak yéen di gànjaru wolof maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam fekk la fa nga nekk jox la sama yoxoy xol ne la jàmm yàlla yàlla na nekk ci yow nekk ti nun waaye nekk ci mboolem réewum senegal ñépp rek nekk ci réew yi jullit yi sunu xel ak suñu xalaat dem ci suñu mbokk ya nekk ca Palestine di ñaan suñu boroom dimbali leen ci tartar yi nga xam ni ca lañu nekk di ko dund muy tartar yoo xam ni metti na lool nu ngi ñaan nag suñu boroom dolli leen a taxawu dolli leen a sàmm ba ñu génn ci jafe-jafe nga xam ni ci la ñu nuyuwaat nag bu baax a baax di leen jaajëfal mbooleem ñi nga xam ni ñu ngi yëy yàbbi ci jataay bi waaye di ci indi seen ay xalaat ñépp rek ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu baax a baax mu mel ni xam naa ca wëpp wee di weesu euh, am na baat bu ma ci tuddoon léeg-léeg na gaa dañuy faral boo tuddee benn baat rekk <laughs> ñu jokk la ne la baat bi nga wax mooy lan leeral ko mu mel ni waxoon naa ci baatu càmbal càmbal euh, ca cambal nag bu ko wolof waxee mooy feet mooy feet ñu ne suba moom ca cambal la maanaam feet la euh, li nit kiy def nag moom la ñuy wax cambal maanaam suba moom danaa cambali mooy génn dem doxantu ji nekk ci sa bopp loolu mooy cambal kon loolu mooy cambal tey daal génn naa Euh, nekk ci sama bopp moo xam damaa dem ca mbeex ma wala ma dem ca lekkukaay ya wala yu demee noonu euh, bu ma fa jógee mën na maa dajeeg nit mu ne ma foo demoon ma ne ko dama cambali woon waaye ca cambal mooy feet ak feet feet nag bu ñu ko waxee euh, day doon loo xam ne maanaam ñépp ko bokk ñépp ko bokk mooy lan mooy lu mel ni dibeer ci ñi nga xam ni dañuy liggéey ci wàllum nguur gi seen bis la nga xam ni kenn du xëy euh, ilaa bu dee ca daara ja ñoom itam ñu am ca bis boo xam ni dañ koo jagleel euh, dallu nga xam ni bis bi wala bis yi nga xam ni ah bis bi kenn du ci dem tool su boobaa bis boobu kon bisu ca càmbal la comme neex nga xëy dem càmbali léegi mu des kon noos noos ci wolof mooy gundaandaat gundaandaat mooy noos am na nag tàqale bu nekk ci diggante gundaandaat ak ca cacambal te mooy noos ak feet ndax tey su neexoon imam Kandji bu subaa mu def ak gundaandaat dëne ma su ko defee ñu dem ci kër ñaareel bi ginnaaw <laughs> jamono yi moom moo bees may nuyuwaale suñu aaw ba ca Koyande Kandji ak mboolem waa Koyande Kandji ñëpp su ko neexoon mu ne bu subaakat euh, mu woote ca kër ga gundaandaat daa di wut xaram mu ndaw wut ay naanu ne ma bu subaa na nga ñëw bu boobaa nag dañuy gundaandaat loolu mooy noos léegi nag eh, cacambal nag mooy mooy tolloo ak feet gundaandaat mën naa am bis boobu mu yem ci kër imam Kanji rek moom moo jënd am xaram jënd ay naanu ak yu demee noonu ñu di ko jëfandikoo waaye su fekkee ni nag lu mel ni cacambal la nga xam ni feet la su boobaa nag day law ci mbooleem eh, ñëpp kon jërëjëf mbokk mi yow mi doon indi indi ay leerlu ci euh, baat boobu loolu lañ ci jàpp li may wax rek nag wolof làkk la woo xam ne ñun ñëpp ñoo ko moom lii la ci kii xam kii xam ca lee kee xam ca la ne li ma ci xam moo ëpp li ngeen euh, wala li ngeen ci xam yéen moo ëpp li ma ci xam xëy na man la yàlla nattoo ma toog fii di wax yow it li nga ci xam ci ay leeral indil maa ngi lay xaar ci njañ sa yi ndeem soob na yàlla jërë ngeen jëf mbokk yi kon mu mel ni ñu ngi woon ci léebu jay la euh, ca ndoorte la tàmbali woon nañ fa léebu ba tàmbalee nettali leen mboorum jay la ca yaayam nga xam ni wax naa leen ni leen yaayam euh, baayam daa demoon ci dëkk bu sori gis ko fa daa di koy takk bi mu ko takkee nag indi ko ci dëkk bi nga xam ni ab sëyaan la woon ci dëkk bi amu fi woon menn mbokk waaye ginnaaw bi nga xamee ni bàyyi jay la wàcc na ab liggéey te mooy génn na àdduna mu nekk ak yaayam waaye bi ñu doxalee diir moom it yaayam génn na àdduna jay la moom dong nag des ci dëkk bi amu fi ndijaay amu fi bàjjen waaye nag amoon na rakku baayam joo xam ni mook baayam a bokk ndey ak baay waaye moom ca taax ya la fare woon nettali woon naa ci wëpp ci tabaski gi nga xam ni jaaroon na fa ak xale yi nga xam ni kenn ku nekk way juróom xottil na ko ndimo lu yees ñawal ko jëndal ko ay dàll ay long-long ay caq ay lam waaye jaay la moom i dégg ngeen ak na mu mujje ba nga xamee ni euh, yaramam daw na xelam dem ci yaayam mu jooy ba daw tàbbi ci àll bi dox ba mu yàgg rek am jigéen ju koy woo bi mu geesoo gis jëmm joo xam ni daal dafa nuroo ak yaayam lool sér yi mu sol sax yaayam amoon na sér yu mel noonu mu woo ko jox ko mbuus goo xam ni la ca nekk mooy ay ndimo loo xam ni kenn mus a gis ndimo lu mel noonu ca tund woowu lu rafet ñu ñaw ko ñaw bu rafet waaye ànd ak ay long-long ak ay dàll yoo xam ni kenn musta gis xeeti dàll yu mel noonu waaye létt ko létt yoo xam ni kenn musu koo gis daldi ne ko nag mën ngaa dem mu doonoon nag coow ci dëkk bi ndax gone gi li mu sol doomi wuur yi sax duñu ko sol fan la ko jëlee doonoon coow lu mag ba mujj nag waa dëkk bi ne kii daal mi ngi ñu bëgg a jaaxal Euh, ginnaaw nag rak ci bàyyi ma nga ca taax ya ci la boroom dëkk bi ne woon nag da koy jël dem ba ca baayam bu ndaw boobee mu teg ko ci ay yoxoom te daldi ciy génn ñu ngi taxee woon nag fa nga xamee ni mooy euh, baayam bu ndaw boobu jël na jaay la takkalub sareet ñu yóbbu ko ca altu ba mu toog daldi xaar horaire bi ba mu ñëw mu dugg ci mook jaay la wàcc na réewu taax di wër kër gi ba gis ko fëgg na am jigéen ju ko ubbil foofu lañ taxewoon kon nu teggi suñu baaraam daldi di wéyal bokk yi ginnaaw boo xamee ni boroom dëkk bi fëgg na am jigéen ju leen ubbil te mooy nday ju ndaw yi jay la maanaam mooy jabar yi baayam bu ndaw boobu yi bi leen ubbilee xool leen ak seen xeetu coliin seeni tànk yu pënd ah xool na leen xooliin woo xam ni daal xooliinu xeebeel lay nurool bi ñu nuyoog moom mu daal ne ko nun day diw lañuy laaj waaye waxu leen ne leen jàll si leen dana ne leen taxaw leen fii ma woo ko ndax jàpp na ni daal moom wërta am gan yu mel nii tax na mu ne leen taxaw leen ci buntu kër gi ma woo ko waaye daal xool na leen xoolin woo xam ni ca dëgg-dëgg ñoom ci seen jëmmi bopp rek xam nañ ni kii day a ah, ca dëgg-dëgg bu dee fii lañ nar a jëm si it xam naa ni mën naa am ngan gi mën naa bañ a neex bi mu demee daldi woo boroom këram boobu ne ko am na ay gan yu lay seet bi mu jógee ñëw génn ci buntu kër gi fekk fi boroom dëkk bi ànd ak jay la ñu nuyoo ñoom ñaar nag gëj nañoo gisante lool waaye teewut nag ab xame des na ci seen diggante bi ñu nuyoo mu laaj ko waa dëkk ba am mbégte lool ca gis gi nga xam ni gisaat na ko euh, kenn ci bokkam yi nga xam ni ñoo bokk fenn fu ñu dëkk waaye doom ji moom xamagut mooy kan ndax gëj na ca dëkk ba la jiitu ak juddoom mu ne leen jàll si leen ñu jàll si mu yóbbu leen ca bulu ba ñu toog bi ñu toogee mu wax jabar ji ne leen xellil leenum ndox ñu naan mu xellil leen ñu toog bi ñu waxtaanee nag a ah, ca dëgg-dëgg nag boroom dëkk bi te mooy ki indi woon jeela ne ko kii dey sa doomi mag ja nga bàyyi woon ca dëkk ba la waaye nag ginnaaw ba mu gaañoo moom itam yaayam gaañu desewul kenn ca dëkk ba xamu fa kenn te daal dem nanu ba xam ni dund gi muy dund ci dëkk bi ñagas na ci moom moo tax ma ne woon dinaa la wër ba gis la teg ko ci say yoxo ndax fi mu ne nii kenn la dese ci àdduna te mooy yow ndeysaan mu daal di koy jël kott ko teg ko ca dënn ba foon ko am mbégte mu réy réy réy ci wax jooju ñu ko wax waaye gisaat dereti magam daldi sant bu baax a baax boroom dëkk bi gërëm ko xamal ko ne ko doom ji def nga ci li nga war a def dina nu ko téye ak suñu fukki yoxoog juróom lépp lu war ci moom dana nu ko def ci noonu nag a ah, boroom dëkk bi tàggoo daan ne man dey xam naa ni awma ab toogaay ndax damay bañ oreel bi daldi ma fiy bàyyi kon nag damay daldi waññeeku rekk dem xaaraat oreel bi ndax damay ragal mu bàyyi ma fi ci noonu waa ji dugg ci biir daldi lem ay kayit jox ko ko ne ko lii man nga cee paas ci noonu nag ndeysaan mu daldi tàggatoo ak jayla ñu daldi koy gunge mu daldi di ñibbi ca dëkk ba ndeysaan jayla génn na ci am kéew am kéew duggaat ci meneen kéew ndeysaan moo xam ni mi ngi fiy doog a ñëw tey duggaat na ci geneen kër goo xam ni gu bees la gisaat na yeneen nit yoo xam ni mi ngi leen di door a gis waaye ci noonu nag bi nga xamee ni boroom dëkk bi ñibbi na ba mu des nday nday nday jay la ju ndaw jooju ak bàyyi jay la ñu daldi toog nag di waxtaan bàyyi jay la nag ndeysaan dafa bëgg jay la mooy baayam bu ndaw boobu amuk cofeel ci moom ndax nam demee woon ak baayam bi nga xam ni moo ko jur te mooy magam ji mu bokkal ndey ak baay waaye daa doonoon góor goo xam ni nag li ëpp ci ay mbiram jabaram jooju moo ko yor xam naa ni daal lu mu wax rekk moom la wax ñimewutoon daal jabar ji di wax mu di ci teg yenn baat yi te jabar ji moom yàlla da ko natt woon mu doon ku siis te sëy na ci kër gi ab diir boo xam ni amu fa doom bi jay la duggee ci kër gi nag njort na ni kii daal mën naa am bu fi yaatoo bu ëllëgee la fay tukkee ci ay njariñ moom mën na koo jël ndax moom amu fi doom loole nag taxoon na daal dalal gi mu dalal jay la daal ñagas na waaw wax na baayam ne ko xëy rek indil la ab xale naan la kii sa doom yi mag la nangam nangam wan na ko ni daal kii ñëw gim fi ñëw neexu ko waaye it boroom këram dal rek ne ko kii daal sama doom la waaw loo ci man ci rafetal rek nga daal di koy def aa ah, jayla door na ak dund gu bees ci kër ndeyam ju ndaw jooji ak baayam bu ndaw boobu waaye baayam da daan def bu xëyee day dem ca pekkam liggéey fa lay yendu ba ngoon mu doog a ñëw waaye nag jay daa njortoon ni xëy na su jógee ca dëkk ba ñëw ci kër baayam bu ndaw boobu ay coonam dana jeex waaye nag mbokk yi mel na ni loole mu njortoon ak li am du benn ndax bi mu tàmbalee dund ci kër gi dooraat na ay fitna yu yees peq yoo xam ni mu ngi tukkee ci ndeyam ji ndaw jooju saa boo xamee ni rekk baayam boobu dem na liggéey lépp luy xeetu coono rek ndeyam ju ndaw jooju dana ko ko teg li kër gi di rëy rëy dana ko ko baleloo dina ko ko baleloo ba mu ba mu set wecc wecc wecc li kër gi di rëy rëy mu fomploo ko ko mu fomp ko di ko fóotloo xeetu liggéey bu diis boo xalaat rek mu ngi ko koy teg ak di ko xatal ngir bëgg rek gone gi génn ci kër gi dem waaye neewoon naa leen nag gone la goo xam ne ci tumuranke la juddu ci la màgg ñu yar ko ci mën muñ ak téye aw làmmiñam ba tax na daal coono yu metti yooyu yépp daal da ko muñoon rek bañ koo wax baayam boobu baayam nag léeg-léeg mu gis lenn ci coono yi nga xam ni ñu ngi koy teg jaay la waaye nee naa leen jabaram jooju daa amoon baat ci kawam ba léeg-léeg mu gis loo xam ni dana ko naqari waaye day noppi su jabar ji génnee mu daldi tàpp tàppal doom ji ni ko muñal rekk waaw sa yaay ju ndaw ji moom nangam nangam waaye muñal rekk bi mu demee nag ba xam ni jay la daal ca dëgg-dëgg sonn na ci kër gi mu xalaat ci xelam ne man naa ko yóbbu ca lekkool ba su ma ko yóbbee ca lekkool ba mu jàngi xëy na su xëyee bañ a yendu ci kër gi dana am tuuti ak piixte ci coono yu metti yi nga xam ni moom lay tegool mu waxtaan ceeg ndeyam ju ndaw jooju waaye mu ne ko daal bu ma sañoon daal da koy bàyyi ci kër gi ba ci kanam a ah, mu def noonu waaye bi ñu wéyalee yëf yi gën a tar gën a metti baayam boobu nag daal di dogg ci yóbbu ko nag mu jàng ca l'école ba jey la daal door di kaw kaw boo xam ni ñëw na bis rek dugg ci l'école waaye li mu yéeme woon nit ñépp mooy xelam mu yaatu ak mana mokalam saa su ñu defee ay nattu rekk mboolem ñi muy jàngandool moo leen di raw saa bu ñu defee ay nattu te mooy ay kompo moom mooy nekk ca toogu ga ca kaw wane woon ak njàmbaarte ku xarañte goo xam ni daal ñi koy jàngal ñépp yéem na leen bàyyam boobu nag bëggoon ci lool waaye ndeyam ju ndaw jooju nag gën ci am naqar ndax moom jàpp na ni daal dee la daal ak tekkeem ak torox teem la moom te xamut ni wërsëgu jaam yàllaa ko yoral boppam ndax fa yàlla di tabaxeb tabaxam fa mi tabaxeb tabaxam loxob jaam du fa àgg loxob jaam du fa àgg te lu yàlla xës ba tabax bu yeboo jaam bañ caa kocc koccal dara ne da koy toj ndax du ko mën yàlla su nammee nga namm la mu namm rek mooy namm mi kon nag ku ko xam daal di noppalu ci noonu nag bokk yi ci tënk at yi di dem jay la mi ngi wëy ci coono yi nga xam ni moom lay dund ci biir kër gi ba yàlla dogal nag mu war a def kàtte kàtte te mooy ay examen yoo xam ni yu am solo la mu war cee amee lijaasa gu kawe waaye nag ndey ji ne nag dana def lépp lu mu man ba jey la du ko def ndax xam na ni bu defee dina am te su amee sax ab ab liggéey mën na cee tukkee wala leneen moom daal dina xool lépp lu mu man ba lool yi du am bis bi nga xam ne nag ndeysaan ci la jey la war a xëy ngir dem defi kàtti googu nga xam ne war na koo def ah ci guddi gi tàggu na baayam ak yaayam baayam ñaanal na ko waaye baayam daa defoon kuy teel a xëy ndeysaan suba teel baay bi xëy jaay la xëy war a dem defi kàtt gi bi mu waajee bay génn rek e, dajeek ndey ju ndaw ji mu ne ko foo jëm mu ne ko damay dem ca lekkool ba ndax tey dama am ak kàtte gu ma war a def mu ne ko xawma kàtte xawma waaye bala ngaa génn kër gi daal li ma lay xamal mooy sama ëmb bii nag ma ko fóotal ba noppi ndax munta xaar daldi di génne ëmb ba muy ëmb bu rëy lool boo xam ni leer na jay la ni su fi toogee di ko fóot bala muy noppi dana dëya dëya mooy tardé dana dëya te bu demee kon du mën a dugg te bu ko yëf yi xësee raw déwénati rekk am atum lëmm bu boobaa dana ko ñàkk mu ñaan ñaan ndey ji ba sukk ci kanamam di jooy waaye ndey ji mel ni xolub xeer la yor ne ko li ma la wax rek mooy li am ba mu demee ba xam ni caaxaan faaxe amatul nenn noo xam ni mën na ko def séeréer mooy wax caaxaan faaxe <laughs> gis nga suñ làkk yi ni ñu duggantee ndeysaan caaxaan faaxe nga xam ni faaxe baatub séeréer la mooy jeex na waaye gis nga caaxaan faaxe mu ngi noonu suñ làkk yeeg ni ñu duggantee ci noonu nag ndeysaan amatul pexe nag ci la dem jël ñaari beñuwaar yu mag dem ne da koy dëkk ndeysaan ngir jiima puut fuut puut mi xay na yàlla mën na koo dimbali bu ca gaawee noppi jiima dem ba xam dana xool ndaka lay mën a def ba def kàtte googu ndeysaan jay la dem na rooti ñaari beñuwaar yi ba ñëw na teg ko fi nga xam ni fi la yére yi nekk jël na yére yi dugal ci biir dem ca ndeyam jooji nag ngir mu jox ko mu jëndi saabu bi nga xam ni moom la war a fóote ji bokk yi ndax jay la dina fóot fóot mi ndax bu ko fóotee ba noppi su demee dana mën a tàbbi fa ñuy defee kàtt gi loolu nag bu ngeen ci bëggee am lu leen leer topp leen ñu ci wëpp wii di ñëw ndem soob na yàlla ñu xool ba xam jay la ak ndeyam ju ndaw jooju ak kàtt gi mu war a def fan lañuy mujje ak lan mooy topp ci mboor mi ci seen ginnaaw eh, da ngeen ñuy topp rek ci àllarba jii di ñëw ndeem sob na yàlla mbég mu rey lañu amoon ci janoo ak yéen ci sunu wëpp wii di gànjaruk wolof eh, di leen dig daje beneen yoon ci beneen jataay ndeem sob na yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala الحمد لله ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna